Sénégal loola la ñuy waxtaanee euh, tax ñu dalal ci El Hadji Ndiaga Samb di doomu Ndakaaru euh, nekk itam njiital mouvement de jeunes lébou de Dakar euh, Dakar gi lu bari xewoon fi ci li nuru li fi am tey mu amoon itam ay njeexital ci askan wi rawatina ak lébu yi nga xam ne ñoom ñooy borom Dakar ñoo sanc Dakar lépp itam fekk leen fi sëñ bi Samb ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi dalal ak jàmm ci démb ak tey. maa leen di fay. di ñaan yàlla jàmm waxtaan bi ñuy waxtaanee muy doon waxtaan woo xam ne dina amoon nit ñi njëriñ liñ ci wax nag lépp du nekk dëgg ku ci dégg la xam ne du noonu na ñëw ci réew mi FM wax ne amoon ngeen fi gan waxoon na lii mais li mu waxee amewul noonu ni la amee pour que nit ñu mën ko gën jëriñoo parce boo xamee lenn am na ko gën a xam boo mënee lenn am na ko ku la ko gën mën boo fekkee lenn yi tamit am na koo xam ne moo la ëpp lu mu fekk donc waxtaan wi wa weccante rek la mm-hmm. ñu dalal jàmm ñëpp ñaan yàlla jàmm liñ jox yàlla na jëriñ ñëpp amiin Samba jubluwaay bi rek mooy ñu xool mag ñi démb bi fi li amee naka la ko dundee woon xëy na yan matukaay la ñu jëloon ba tey ñenn toog di ko nettali ñun ñëpp yàlla nañu weesu fi ñu toll ba di ko nettali ëllëg kon loolu aussi mooy jubluwaayu waxtaan bi lépp lu ñu fi wax comme ni nga ko waxee yàlla na doon njariñ ci ñëpp mm. alors ñu commencé ci épidémie yi nga xam ni amoon na fi euh, li nga ci fekkee wala li nga ci dégg lan la mm-hmm. fan li ma jot dégg ci mag ñi fi nekkoon dañuy wax ne jàngoro ju ne mel mas na fi am ñu di ko wax euh, pays la fièvre jaune bi mu fi amee ci Cap Vert fii dal ci ñu bare bare bari comme dañ ne day wàlle tubaab yi fi nekkoon ci jamono ñeme ñu ñu ko woon. woon. fekk fekk accès gu ma. d'accord 1500 1548 comme dix ñenn ñi 1600. Okay. mais ba mu fi amee mag ñi amoon nañu ay pexe ci garabi olof. Hmm. tubaab bi ñu ngi ñëw fi 1857 ak proté ci lañu fi installé yàgg fi tabax fi ay taax dëkkandoo ak nit ñi. bi yooyu di am fekk na hôpital am na fi mais ñoom ñemeñu ñu ko woon ndax fu mel ni hôpital Le Dantec ñu ngi ko doon wax à l'époque hôpital indigène mm. hôpital principal ñu di ko hôpital militaire hôpital tubaab bi ñaari hôpitaux yooyu bi yëf yi am ci jamono booba ñemeñu ñu ko dañ doon jël nit ñi di leen yóbbu ci ginnaaw Tëngéej am na espace bu nekk bu wax lazaret mm. nee nañu am na foofa amoon na itam ki Dakar ci booru campagnol booba campagnol amul dañ daan ber ñooñu mag yi mooy isolement bi ñuy wax tey wala quarantaine bi ñu wax tey ak isolement bi loolu ba mu amee dañ daan jël ñoo nga yóbbu foofu ca ca ca prise ba mais ku fa demaan doo ñëw parce que amuñu woon paj day dee mag ñi nag jël bakis ak di bëtoon di ko xooj ñu di ko naan di wàccu di commencé di wér xam nga booy seet ne si biru bu yàggee ci biir nit bu borom waccoo waccuwaat li ci day am luy son luy nekk ci biir luy génn da koy génne mooy xaylit xaylit boobu nag bu fekkente ne nit ki si biru dafa des ci biram te génnul bu toogee ci estomac bi dafay tafu ci fois bi à longue mooy indi cancer du foie du ma médecin nag jàngalekati école laa woon pendant 34 ans mais avec le temps am na lu bari lu mu dund loo xam ne xam naa ko. loolu moo nekkoon jàngoro yi. fièvre jaune euh, bi. ñu dem ba jamono en 1914 1915 13 14 mu juddu wax nañu ne am na coow lu amoon ci dakaar booba lébu yi fi ñëw installé fi ñu en 1432 ci Padoa bii tey mu tuddoon bu xeex à l'époque de 1548 ñaari groupe yi tas ñii ñëw yof gi ma fekk tey ma dëkk ñenn ñi dem ndakaar bi ñuy dem ndakaar dañu dëkkoon ci booru corniche bi ci ndox mi jàkkaarloo ak géej Monaco plage dañ fa dëkke woon dem dëkk teeru Baye Sogi dem dëkk Bouchra dem tey fi ñuy wax lance Bernard daan ko wax juus à l'époque noonu dañ ko dëkk woon parce que ay mool la ñu woon ñenn ngi dëkk sumba jun tubaab yi nag bi ñu fi ñëwee ba installé 1857 ba miin bëgg nag dëkk booru géej bi tax ñu xëy indi une confusion dans l'esprit des des des Dakarois mais feebar dafa fi am feebaru euh, kii euh, euh, peste dafa fi am lay wàlle bon dañu war a fexe nit ñi fa ñu nekkoon ñu jële leen fa yóbbu leen feneen. isolé leen isolé leen. amoon na fi en mille euh, diggante 1432 bi ñu nekkee Mbuxeex. Mhm. avant la dislocation de Mbuxeex 1548 1548 li tax Mbuxeex tas mhm. première habitation des Lébu fii ci ah, fii fii Patte d'Oie nekk tey ji fièvre fièvre maladie de samay moom fi amoon. feebaru nelawaan dañu dañ doon nelaw rek waaw ñu naan kii ñee def lii lii ñee def laa ñoo nelawal ñii ñoo nelawal ñële fekk feebar la woon mm-hmm. finalement coow li am moo tax foofu en 1548 mm-hmm. ñuy yéeg ñëw Yoff ñenn ñi dem Dakar mais bu Dakar bi peste la boo xam ne tubaab bi ñoo créé mm. uniquement pour fexe nit ñi feebar ñu leen fii feebar dafay am su ngeen fu jegewul ñëppay dee dañ leen xupp mm. ils ont appareil ñu jóge fa ñu bañ ñu ne. mais peste bi amoon na dëgg la woon. fekk na am na ci ay benn benn. parce que ki feebar nga piqûre ko yow buy màtt da lay màtt ba àggal ubbi gémmiñ gi bàyyi ci ci dere ki mu ki ki mu jam larve hmm. manque gi dereti kooku kii feebar nga manque deretam dem fekk koo xam ne dara jotu ko. Hmm. nga nga ko yàbbi fa am loo fa jël da nga ko wàlle boo gisee bu bu feebar ñaan bon dàqal yooyu yooyu day wàlle feebar naka la yooyu feebar yooyu day ping kii feebar dem yàbbi ko ci kële feebarul kële feebar hmm. yoon noonu day def allez voir les scientifiques ils vont vous le confirmer effectivement alors moo tax euh, si biiru bi di law yooyu bi di law yooyu moo moo koy andi léegi nag bi yooyu amee yëpp ci kat mat na seet ñu ne amul seet dem fenn fii lañ dog duñ fi jóge li bu dafa dëgër bopp wax ji bari tubaab yi wax fii ñu bañ ñu face à face di bu ko jàppante ci place fi ñu jógee tey place Protet. mooy place de l'indépendance tey. waaw bala ca biir Dakar. coow leen ne kur coow la ne kur coow leen ne kur ñu ne ba ñoom dañ ne dañuy defar fii ci leen. muy l'actuel Médina boobu àll boobu ay till la ñoo fi dëkk. waaw mm, ah, moo indi tilleen bi tilleen bi ñu ne waaye duñ dem fële foofu xam ne ay till rek ñoo fa def ñu defar nañ ko dinañ ko defar ay mbedd dinañ ko aménager dinañ ci def ndox dinañ ci def lii ak lii ak lii. magi lébu yi ne bon d'accord mais ñun balaa ñuy dëkk fenn dañ koy seetlu ñu dañ maam El Hadj si Tivaouane waxtaan ak moom comme yàlla may na ko nitu yàlla la. mu xool ne leen ah mën na baax man ngeen fa taxu ngeen dem dëkk mais ngeen tuddee ko Medinatul Munawwara fi yenent bi dëkk loolu maa di turu Medina ñu ñu ñu dog ko en concession de quatre familles ñeenti famille bokk benn ñeenti famille bokk benn noonu lañ liggéeyee ci leen de l'avenue Malick Sy ba kat ba ngay dem fa mu gël dàbbe ak corniche ba ci fii mii ci juróom benni pénc ñoo jóge foofu ñoo ñëw ci leen ñoom ñoo fi dëkk si ba ñu doxu see ñu nga des fële yàggul dara cette fameuse peste là comme on disait yem fa. daal di disparaître. <laughs> disparaître créé de toutes pièces par les français rien que pour mën a délocaliser nit ñu jóge foofu ñoom ñu jóge ba littoral bi d'ailleurs boo demee Dakar boo xoolee le port de Dakar ak certains comptoirs français. ñoo occupé le plateau bor marché Carmel bien Tesser la maison Ouskoa Davis et chemin euh, ak feneen ak feneen ak feneen ñoom ñoo fa nekk Kër Lacoste ak yu ma xamul xam la du ngeen fi du ngeen gi mais bu ngeen xoolee biir Dakar en face de la baie en face banque centrale di nga gis benn immeuble bu mag bu jàkkaarloo ak 2STV 2STV man tension africaine moo fa nekkoon dañ fa doon jaay oto des voitures Renault car rapide yi R12 R4 ak yooyu de taax mi mu jàkkaar loolu boo demee mbind maa nga fa en en en ciment lañ ko def la banque de l'Afrique occidentale BAO devenu plus tard la BIAO bi nekk indépendance donc tubaab bi foofu ma leen soxaloon ñu dëkk noonu man jàkkaarloo géej gi man def seen commerce dans l'Atlantique l'aller et venir bi lañ soxla woon voilà yow tubaab nga dégg ils avaient besoin de la côte pour seen débarquement ak ak ak seen embarquement mën yomb mm. yooyu mooy ñaareel bi. ñetteel bi ci des bu ma fekkee am na fi benn grippe 1956 57 mm. boo xam ne dañ ko faj faj faj muy wàlle te bu duggaan ci kër. Mm. ñëpp day jàppal ñi kenn par kenn ñu tëdd. kon mooy mooy li mel ni li am tey mais ñu taxaw tuuti ci peste bi dafa mel ni Yoff aussi amoon na isolement ci jamono jooju wala genre confinement. non non non non non ah non non non bi bi bi bi 1548 bi ñu waxee feebaru nelawaan moo am foofu. Mhm. dafay indi réero entre deux familles. maternelles ñu ne bon nañ teqale ko ñuy dem Dakar ñi ñoo Yoff. Mhm. mais Yoff n'était pas isolé. parce que feebaru nelawaan bi fa amoon la maladie de sommeil bi fa amoon. Mhm. dafa dafa dem après yàggul parce que Sénégalais dañ ko xeeb mais am na lu mu mën a faj feebar bu nekk feebar bu nekk bu am bu feeñ fii ci réew mi mën nañ ko faj fièvre jaune dañ koy faj mooy payis bakis mm-hmm. dënn bu rëcc du metti dañ koy mocc mu dellu bopp buy metti yaxu yaxu bopp ñett la l'os frontal plus les deux os de la nuque su bopp bi ummee bopp bi dafay metti ay bët mën na metti ñu ne demal xool demal def ci mbeexum géej ak sam-sam boo demee dans les villages où il y a des plages Petite Côte par exemple Joal Fadiouth Mbour Ndar Waalo mag ñi bu ñu xëyee chaque matin ñu ngi au de la mer xam nga lu ñu fay wut mm. leer marin ngelaw boobu mooy dugg ci bët yi ni air marin baax ci bët yi mag noonu la ay ci fer ci ci kër yi érosion maritime bi dafay dugg ci batiment bi lekk fer bi yàq ko mais par contre ak nit ki xëy dem toog booru géej di ko xool mm-hmm. dafay baax ci yaram da koy dundal. moo tax tubaab yi bëgg dëkk booru géej. dëkk mm-hmm. yooyu moo fi am mm-hmm. grippe asiatique bi ma lay wax ni 1956 57 dafa yem maam rawante gaal. xam naa digg waa Wakaam ak waa Ngor buñ ko déggee il wul confirmer dañuy rawante raw waa Wakaam raw waa Yoff raw waa Ngor ak waa Caaroy ak waa Sanc ba quelque temps après grippe bi jóge fa génne Ngor muy la grippe asiatique ñu feebare fa par benn muy dugg ci kër yi ba am ñu demoon Ngor xew ñu jëli ko fa indi ko Ngor dans le chahut gars yi naan yéen ni leen waa Ngor liggéey woon ci rawante pour raw leen dafa dafa ñëw ak retardement moo tax léegi yéen a ngi feebar par kenn ñaan mais est-ce que lii du du pëndëb Ngor bi feebar bi bi am ne Ngor moo jóge booba moo moo wal fekk na booba grippe la woon boo xam ne xamuñ nu mu tudd mhm. après la ñu découvrir ne groupe asiatique la à cette époque papa alaaji Adama Cissé yàlla na ko yàlla oyofal suuf ci kawam médecin africain la woon mu ngi nekkoon service du jeune Amadou Cissé en ancien président yi assemblée nationale médecin africain la woon boobu Sénégal médecin africain yi fi nekkoon c'était composé de sénégalais de de daoméen et de togolais ñooñu ñëw fi bari woon mais ci feebar boobu épidémie la bu fi yàggul après mu dem bon. bi ci des am na benn feebar boo xam ne comme sibiru la woon mhm. mais di woon sibiru la mais malaria la woon bon dans les pays tropicaux te daan jóge bon comme Sénégal ku nekk fi du ku nekk fiy génn mhm. booy ñëw rek am carnet de santé indi fi loo xam ne kenn du xam fan la jóge mhm. ba mu xëy lawa lawa lawa lawa lawa ba nu ñu accès ci lii feebar bi fi am ni ku nekk di ci wax ku nekk di ko tudd ku nekk di ko interpréter ni mu la neexee ku nekk di ci wax yu nekk réew mi léegi neexatul waxe parce que soo waxee dara dañ naan euh, kañ kañ la fi juddu bërk démb bëgg fi xam lu kenn xamul di ju n'importe quoi lu leen neex mu wax benn waaye dafa ñëw ne ma man day du ma dëkkuma Cap Vert Casamance laa dëkk xale laa amaguma 40 ans ma ne ko waaw nga dama doon julli fan yi paase mais ma gént ñaari yoon ci guddi ak ci fajar benn feebar boo xam ne dina lëmbi réew mi ma ne ko waaw ma ne ma may bi ma jullee ba pare ba ma gisee loolu ma ñaan ma tëddaat ñu digal ma ne nay jàng fatiha salaatul fatiha ak trois cent 33 salaatu ala bi ma ne ko ah loolu day nañ nañ ko laaj ñu am xam-xam bi ñu ko waxee ay benn benn mag ñu ne bon nañ ko yëgle. loolu kañ la woon li ngay wax ni waa gi daf ko wax. Mhm. mu am un mois et cinq jours feebar bi génn. Ah waaw te ci kër gi fii la ko waxee. un mois et cinq jours la ko wax. Mhm. ak ah, feebar bi am. ma oo ko ma ne ko ah. ñibbi nga demee li nga doon wax man ne ni mu ngi bëgg am ci mi de. mu mm. ne ma maa ngi koy dégg de ma ne ko lan mooy ciy pexe ma ne ma li ma la waxoon rek. Fatiha salaatul Fatiha 333 salaatu ala nabi mu ne boo ko jàngee da koy ëf ci sa ti feebar bi du fa dugg. Mm. yàlla dégg na làkk bu nekk yàlla moo wax ñaan leen ma ma may leen. Mm-hmm. moo wax ne su ngeen mañaanee ma may leen su ngeen kontaanee ngeen sant ma ma gën leen kontaan ma dolli bon loolu su amee lu ni mel ñaan moo ci mën génne nit ñi gouvernement ak ay pexeb ak i hôpitaux mag ñi ak seen ñaan yàlla ñu dégg olof ak ñu déggul olof dara matul xeeb li am solo mooy na ñëpp wér bi feebar bi duggee ak léegi wax nañ ci lu bari wax nañ ci lu bari feebar nag mooy alal bi nga xam ne moom la nit kese moom bokk ko moom kenn sa téléphone bi buñ la mayee benn ëllëg dangay maye bi sa dàll yi boo amee beneen ëllëg danga koy joxe jël beneen yooyu nag nga war a xam ne loo am muy sa wërsëg muuru kenn mën na ci nekk da nga koy am danga koy joxe da nga koy am da nga koy maye mais par contre feebar bu ko nit amee mooy alal bi nga xam ne moom la moom moom kenn bokk ko ak kenn xam nga luñ ci mën ah metti na de massa de yàlla na ko yàlla teggi mais wàññi ko ma ma ma yor la la jox ma ci ma dimbale la wàññi ko ma jàppale la amul fenn bon feebar na bu yàlla andi ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla gaaw a jële nit ñëpp wér kenn bañ ci sikkante parce que kenn xamul lu ko fi andi mm. du négligence moo ko fi andi du ñàkk ay moye moo ko fi andi ku sañoon doo feebar ku sañoon doo feebarle encore moins réew moo xam ne ñëpp fi dëkk ci réew moo xam ne ñëpp fii ñëw bon lu fi agsi rek nañ fexe ñu boole doole yi ak pexe yi mm. pour que mu wér mu jóge fi am na solo Samba ma fàttali ne démb ak tey ngeen di teewlu ñuy waxtaanee lii xew tey muy épidémie coronavirus wala pandémie sax selon OMS waaye muy lu fi amoon démb démb jooju ci la ñuy des wax nga ko léegi ñëpp dañuy ànd euh, gouvernement bi ki hôpitaux ma ki pexeem mm-hmm. waaye mag ñee ki seen ñaan aussi ak seen i pexe démb bi fi épidémie yu mel nii daan am mm-hmm. mag ñi fi newoon mm-hmm. lana doonoon seen taxawaay ku mel nii maam El Hadji si wax nañu ne bi fi euh, peste bi euh, ñëwee nga ne tubaab yee ko créé Euh, dégg nañu ne am na rôle bu am solo bu mu def bi nga xamee ne nit ñi bañoon nañoo vacciné wu. ñëw na wax ak ñoom xëy na mocc leen ndax ñoom itam am na benn gis-gis boo xam ne amoon nañ ko ci ci mbir mi foofa ñu ñëw ci taxawaay bi mag ñi amoon. Euh, jamono yi lu mel nii daan am ba dañuy wax ne moom El Hadj Malick bi affaire bi amee bañ ni nit ñi ñàkk dañ ne duñu ñàkk waaye moom comme nitu jàmm la dafa jóg rek dem jàpp njàmburam. cette euh, li nga xam ne moom la gaañ yi di wax ci ñàkku mu dem ñakku neen man day Maodo ñàkku naa bon ñakk yi indi coow li dara nekku ci ñoom lu taxoon bëgguñu woon ñàkku mais ñàkk xam boo xamulee kenn waxu la lu dul nàngam xew na te yëguloo ko ñàkk dañ koy def à titre de à titre bi ñuy dugg école dañuy dem ba jamono boo xam ne dañ naan dañuy ñakku mm-hmm. ñu rëdd suñu loxo yi juróom benn ñu rëdd ci ci ci ci ci ci ci përëgu përëgu càmmoñ mm-hmm. ñu dem ba yàgg ñu bàyyi boobu di ko def pinga mooy piqûre mm-hmm. vaccin vaccination par par par injection mais yooyu yëpp après la am mais ñi nga xam ni xamuñu loolu xamuñu ni mu demee dañ naan rek du ma ñàkku óorul mm-hmm. taxal Maodo dem ne ba mën naa ñàkku ndax comme am na mbooloo ma topp te daara laa yore mm-hmm. ba ma ñàkkoo ñi ma yor dinañ dinañ ko ñemeñ xam ne dara amu ci mm-hmm. dinañ ko óolu xam ne dara amu ci ñu dem ñàkku ci bu safaan amee lu comme lii mag ñi seen taxawaay moo nekkoon ñaan boo demee jamono biñ toll léegi nii à l'attention de ceux qui ku ci jàng alxuraan suratu saafaati aaya 103 am na ñaari baat yu ci nekk mooy jeexal aaya ba ñaari baat yooyu mooy wa tallaxu lil jabini dañ koy bindal xale yi ak crayon feutre mbaa ci diggante ñaari mbagg yi boo ko bindalee xale ci feebar bi du ko wàlla wa talaxu lil jabini saaru ñuy wax saafaati aaya 103 xam nga man xaw ma ko ñu ma ko waxee ca joof yor na Bounane Aïdara bi fi nekkoon xalifa ay doomam ñoo ko wax ñi siiwal ko foofu su ma wëllëra yu fa nekk wax ma ko man itam ku ma ci man la ba xool ko nga bi nga ñëw ko sa bopp taxawaay yi mag ñi jamono yooyu loolu la woon li ma la wax sànq ci li mag ñi mën a faj dangay gis ko damm nga dem toor jëndeer ñëw natt ko mocc ko delloo yax yi daal ko takk noonu jël bant bale natt ko ne la demal ñibbi le matin boo xëyee nga def ci ndox fi nga toog ak damm-damm bi nga yëg muy jam dina fekk bant bañ nattoon bàyyi ko fa moo moom la ñuy màcc muy awu fi. waaw moom man gis naa ko. ban mag ñi amoon xam-xam bon. waaw waaw bopp buy metti nga ñëw toog ñu jàkkaarloo yow duñ la laal duñ la jegeñ di la xool di jàngali ëf doo nga ne sedd na du luxus du njabar alxuraan alxuraan bi ñu jàng ñun jullit yi amu ci lu ci nekkul ci loo xam ne mën na feebar ba ci jalis bi ñuy wax sax ba ci cancer. ah oui oui. da nga ci dajeeg mag mu diire na la ah ma wax la kat lii mën na faj nangam ak nangam ak nangam nga wéeteeg mag mu ne la ah lii sur les 6666 euh, aaya am na ci aaya sàngam aaya sàngam tu en fais une composition mën na faj feebar sàngam feebar sàngam feebar sàngam c'est que nit ñi est-ce ce que dinañ gëm. loolu am njàng la wala ay mbóot la lu yàlla di def. ci ñenn ñi mën nga jàng alxuraan bi mu jeex doo ko xam. xam-xam ñett la bii da koy jàng ci jàngu bi di nga jeexal ko téere yi doo xam lu mu doon bii da koy fekke fekkewaat ko dañ la koy déy mm-hmm. bi ki des dañ la koy wax yu mel noonu nag mag moo koy wax xale mm-hmm. bu yaru bu dal bu teey bu màndu mu déy ko ko mu nette ko di ko rawee ay moromam ta classe d'âge ngeen jàngandoo école am certificat d'étude am brevet élémentaire am baccalauréat dem def formation nga jaar nii ñu jaar ni à travers les contacts que vous fet mhm. di ngeen ci découvrir toutes sortes de personnes am na ñoo xam ne soo ñëwee dañ lay wax li am de la manière la plus correcte possible mhm. ñenn ñi ay scientifique lañu dañ lay wax ñenn ñi nag dañ lay wax loo xam ne doo xam fan la jóge mhm. or mag ñi nga xam ne loolu moo nekk du seen liggéey seen passe la alxuraan du liggéey du métier jàng alxuraan la xam li yàlla wax jéem ko xam pour comprendre ko à travers nag ces mystères ci la la mag ñi ne la Fatiha ak Falaq yaar naa si dina faj bopp bi metti nga dem ci mag waxtaan ak moom mun na ah yow sa waa kër ñi kat dañ fiy ñëw rek ba leen ko fajal nga ne xaw ma ne la boo demee nga jàng fatiha benn yoon ñeenti salatul fatiha ak 65 qul huwa allahu ahad nga ëf ko ci ndox ñu naan ko day faj biir buy metti mais ce sont des gadgets qu'on vous mm-hmm. bu ma la waxee benn nga noté nga dem ci keneen mu wax la benn nga dem ci ba boo boo ci amee nga du bari. waaw su matee mille nag léegi lu nekkoon dugg rek nga ne bon moo xool voilà ce voilà ce qui m'a été tu tu tu mets ça à gëm moo am solo boo gëmee faju wér boo gëmulee nag di di faju doo wér mhm. da dem hôpital médecin bi ñëw taxaw ni mu lay recevoir di waxtaan ak yow mhm. di masla ak yow daf lay jox confiance ci ne su ma ëpp ji ma ëpp dinaa ci tane mais am na ci set na ñoo xam ne bon dama xamul lu leen di daal ñaare boo accès bu fekkee ni c'est un cas désespéré dañ naan bon écoute on va on va tenter mais. a plus d'espoir. daal di giñ giñaat yoo nga xam ne da ngay dee nga jéppi ko. te am na ñoo xam ne da nga koy wax ba pare foofu foofu ngeen koy waxee yàlla mooy wedd say wax yow médecin bi. Mhm. ni nga désespéré loo waa ji yàlla dugal ci wér. Mhm. donc d'un mu jóg toog xool wax ni nga ne comment est-ce possible. prenons le cas de le le, le cas du yu xool. Mhm. ngay dem hôpital mënuñu ko faj. ne plein yi ma xamul li mu doon nga dajeeg benn waay ci Tiwaawan mun la utal utal utal mburu nga lakk ko jàmb ko def ci nangam ak nangam ak nangam segg ko après nga naan ko. nga jël mburu lakk ko bu mu xëm. nga jàmb ko segg ko jël ndox moom mu di ko naan bu la jigee balay trois jours mu deñ oui. nga dem ci keneen ci Tiwaawan mu ne la demal jënd gerte caata di ko baxam joxal doom yi xale yi ñu yëy ko xobitu gerte bi ñu def ci ndox am na lu ñu ciy def nangam ak nangam pëf ñu jox la nga di ko naan balay ñetti fan mu wér nga dem hôpital bu jëkkoon da nga doon jekkali <laughs> mënuñu ko faj j'ai vu ça en en en 84 sama mag sama magi papa nekk nekk pavillon lay nekk. biñ tuddee beneen tur dee laay fii nekk moo tax ñu ko ñu koy di naan ku fa dem dee dee laay nekk. dee laay nekk pavillon laay nekk hôpital Dantec. Mhm. mais ñu ñëw foofu ak de bons médecins qui sont considérables attention. Mm -hmm. les médecins africains ils sont là-bas à l'hôpital principal hôpital Dantec ce sont des internes de l'université faculté de médecine la ñu nekk dañuy xeetam hôpital. comme interne di liggéey bi 13 ñu déggoo te ñibbi añ. dem salle de cours ba ñu fa jógee dem jàng ji. ba fa jóge di h 21h ñu ñu ñu leen député de ils font de pratique. bokkul ak ñi nga xam ne nag dañu nekk ca France. war ñëw fii pour leur durée légale de dans l' armée. Mhm. ñu ngi leen fii que nous nous servons de cobaye. ñu dañuy jàng ñuy essayé ka jàng. ci essayé ka jàng lu xibata ka daggi loxo ka daggi tànk ka daggi napp ak xotti biir quand ça si ça va quand tu en peins ñu ne bon j'en suis à ma première bu ci nekk je l'ai vécu je l'ai subi bon li ñu am matul xep nañ ñaan yàlla luñ ciy def rek yàlla def ci barke bu bëril lii feebar bi damay tooñ ngay naan yéen ñi dëkkoon fële ci rëbës da dak cinéma corona yéen lay jàpp <laughs> kenn ki ñëw ne ma may grand maa nga dëkk xuru naar ma ne ko yéen ñi dëkk waa xuru <laughs> xam nga dis xam nga xam nga auditivement corona. cinéma corona ak xurunaal dafa xaala xel be ma di leen ko tooñee du ñu fi ñëw def ma leen ngay futeel kan yéen du ngeen du ngeen du ngeen. ngeen ko fee indi. <laughs> alors ñu des ba tey kon ci loolu xam nga tam feebar bu génnee daanaka dañuy wax ne euh, am paj moom day jóge fu ne ku nekk da ngay indi li nga xam mm-hmm. loolu dafa ñuy indi peut-être ci li am diggante barki démb ak démb mooy ci coronavirus bi am ñu ne am na ku gént ne ab karaw mu ngi ci kaamilu alquran bi karaw yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ku ko xooj naan ko da nga ciy mucc mm-hmm. euh, coow loola ndax dégg nga ko ak itam noo ko dundee bon dégg naa ko benn ñu wax ko mm-hmm. am na xale boo xam ne démb fii ma toog di wax ak yow fii la toog mm-hmm. mu ne ma tonton daal di ubbi portable wan ma ci ci kaamil alxuraan wane ko ni mm-hmm. gis ci karaw après mu filmé ko daal di ma ne bon ma ne ko effectivement gis naa ma ne ma karaw baa ngi nii ne ko bon lii day leer na mm-hmm. man jël naa ñaari kaamil xool naa gisuma ko du ma wàjj na amul parce que kenn ku nekk li la yàlla woon yow du ko woon sa morom buñ ne ci kaamil lañ ko gisee kaamil alxuraan la yàlla la mm-hmm. ñu ne boo ci gisee karaw ñu ne karaw yonent bi la duma ko weddi parce que man gisaguma ko mm-hmm. am naa ñaari kaamil xool naa gisuma ko ci du ma ne baaxul dama ne lu lu lu ñuy weddi la. alors ba tey ñu des euh, ci euh, cadre boobu. Mhm. mag ñi dañuy am ay ñaan mais tey gis nañu euh, par exemple bi li jógee kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñëpp dañu ànd topp ci ginnaaw état ak mesures yi nga xam ne moom la ñu tëral est-ce que avec les colons ñi nga xam ne ñooy tubaab yi fi nekkoon noonu la daan demee ak mag ñu baax ñi fi ñi ñu fi fekk surtout magu lébu yi nga xam ne daanaka ñoo ñoo nekkoon Ndakaaru. colon yi dañ doon wax ak lébu yi parce que bi ñu fi ñëw 1857 mag ñu leen may autorisation pour ñu installer en terre pleine Gorée la ñu nekkoon Denis Diaz moo découvrir Gorée en 1432 pendant ko ñu ñu ngi foon en mille en mille 1432 Denis Diaz ñëw fi en 1444 portugais yi nekk fa hollandais yi nekk fa anglais yi nekk fa ak français yi léegi nag c'est l'enseignant qui parle. waaw. Ah. <laughs> du dëgg. Mhm. ñooñu nekk foofu ba 1857 pour que ñu ñëw fii traversé Gorée ñëw dañ ko daan def pour taxan si ak ut ndox mu ñu naan. ñu ne quelquefois les vagues sont tumultueuses la mer est houleuse. Mhm. est-ce que duñu ñaan lébu yi pour ñu may ñu dal fii en terre pleine. Mhm. les Français colons comme on les appelait. ils ont été autorisés à s'installer ici dans cette presqu'île et à Dakar. sur autorisation bu ñu am bésu korité ñu ne leen da ngeen di ñëw lu xew suñ leen ci boolee ngeen ñëw buñ leen ci boolewulee bu leen ñëw lu ngeen di def itam ne dëppoo ak lu set fii hmm. dañ leen mayoon yi li fa ñu woon hmm. dañu coloniser Sénégal gi yëpp après leur pénétration dans le pays ils ont fait un peu partout donc Faidherbe ak Pinet-Laprade ces deux yi xam ne lu ñu deful ci mi ci lu bon amul suuf fii waaw du du du Faidherbe du naka la sànq. Pinet-Laprade là c'est dans les contenir. Mm. ñi fi nekkoon lu amaan dañ daan dem di waxtaan ak nit ñi. je prends le cas di du service d'hygiène mm. dañ daan dugg ci kër yi xool ëtt bi xool mbaari xar yi xool ngunu ganaar yi seet mbalit mi seet salit bi daan alamaan nit ñi bu kër yi ñu alamaan la nga fay. ndax daa nekkoon na 3000. ndax question d'hygiène ñoo ñu fi nekkoon colon yi dañ doon waxtaan ak mag ñi ci bu ñu gisee lu ñu xamul. comme lan. diisoo ah mbir am de lan ngeen ci xalaat lii la ñu bëggoon def mag ñi ne ba ñun tam lii lañ ci xalaat lii la ñu bëggoon def ñu defandoo ko état bii tey ñuy wax. léegi loolu tudd ñu ne da nga bëgg xaalis da nga bëgg ku la jox xaalis wala da nga bëgg ku la dégg wala da ngay man fi mu nekk léegi gaal guy teeri laa xewi naa dootuma bokk ci dara dootuma bokk ci dara ñi fi nekk ñoo fi nekk nguur gi li ñu def mooy seen warugar feebar bi am na ñu ngi wax lan mooy ciy pexe ñu nañ ber ñi feebar nañu moytu loolu mooy waru ku ñu dénk réew ci nga war a sàmm nekk ñu doomu aadama yi kilifa diine yi topp ñu état parce que dañ bëgg lu ko neex et ça je le dis à leur décharge situation am na ñu ne nañu moytu fu nit ñi bàyyi di jëm fi nit ñi bari dem marché ngi ni nit ñi dañ fiy dugg doo xam ko wopp ak ko woppul. surtout que wopp bi dafa mën na nekk ci yow te doo ko xam. justement ñu ngi dugg marché bu doon fu mbooloo rek lañ ko tëj ba ñu tëj marché mais dañu ne jàkk yi comme nit ñi dañ fi ñëw di julli si mm-hmm. duñ ko tëj julli juma mbooloo mi day bari mm-hmm. doo xam fu nit du jóge gàmm mbooloo mi day bari doo xam fu ñu jóge ngénte yi ak takk yi ba ci dëj yi mboole yi dañuy bari doo xam fu ñu jóge ñu ne bon nañu fexe ci ci nëgandiku mooy en attendant ñu wàññee gum yooyu loolu moo tax bi état yi di wax li mu wax kilifa diine yi jël seen responsabilité ne ne nañu moytoo gum ndaje mi Yoff laa dëkk Mbengeen laa dëkk jàkka jul nañ ci suba dañ julli ñibbi néew ñu nañu tëj jàkka yi de parce que julli suba tisbaar tàkkusaan timis geewe c'est cinq fois par jour mm-hmm. ñi fi dëkk ci gox bi ñoom ñoo koy def jumaa nag ñi dëkk ci tund wi yëpp ñooy daje ku feebar mën na ñëw ki feebar xam ne feebar na mënul ñëw mën na toog mm-hmm. ki ñàkk xamal dafa feebar mën na ñëw fekk mu ngeeg moom mu wàll ko mm-hmm. à titre de prévention mooy ci fàggandiku fàggandiku de ko ci wolof mooy écartement déblayer dégager waaw fàggandiku mooy prévention ci wolof prévention prévention prévenir écartement isolement dégagement isolement du dëgg mais bu fekkee ne nag yooyu yëpp dara óoru ci ñu ne ah nañ moytu nañu bàyyee gum ngénte yi nañ tudd rek dem mbooloo bañ a ñëw parce que man ma dëkk fii di ngénte Cap-Vert yëpp war a ñëw ci suma xew ñii ñëw am ci ci feebar ñu ma xam ak ñu ma xamul ñee dañuy dem parce que ma xew la dañ ma war a ñëwal ñu ñëw ànd ak jàngoro wàlle ko loolu wóor na. kersa sax dana ko jur ci yow mi ñëwal loolu ah, lu ñuy wax moom day dafa demoon ci ngénte la waaye ba mu fa jógee daal fa la ko feebar bi toppe ñu ne ah bon nag nañu xaar rek nañu ñaan nañu waxtaan état forcé wul sëriñ si kilifa diine yi ñëwee nañ tëj jàkka yi mbaa jumaay mais kilifa diine yi ñoo am matuk ne ah comme li am na kat nañu fàggante ko bon mooy toogum en attendant ba ma jël exemple ci imam ratib bi Dakar suma rakk la. Moussa Samb. imam Alioune Moussa Samb. démb ba ci waxtu bi nit ñaa ngay wax di wax moom mu ngi noppi mais bi ay kilifa waxtaanee ak moom. Mm-hmm. mu ne li ñëpp wax comme mooy dëgg dañ def noonu bon tey jumaay ndakaaru gi tey duñ ko tijji mm. duñ jëkkoon wax amuñu fi baat mm. duñu imaam duñu sëriñ ndakaaru xamu leen bokkuñu fi seen làmmiñ moo rëy ak ñuy ut baat ak ku leen xame mm. fii nag ma waxaat ko mm-hmm. ku dëkkul ndakaaru doo lébu doo jiite ci jumaay ndakaaru ku bëgg a ut tur nag bëgg siiw Masaalikul Jinaan mu ngi ni koo daan tabax du du du murit mm-hmm. ba mu jeex lébu ñemeñ ne faa dem nekk fa imam waxal déedéet bu neexoon tey sëriñ Muntaxa tey mu ñëw na tey jii ndakaaru laa seet imaam yi ndakaaru imaam raati bi ndakaaru na ñëw fekk sama fii ci sama jumaa ji ñu tabax mu jiiteel ma fii maa ko fi bëgg ci dama ko dama ko ci invité kenn du ci mën dara kenn du ci mën dara l' exemple c' est bi ñu bi ñu tabaxee Grande Mosquée de Dakar. Mm-hmm. Dakar doo ngi foon ak imam ratib Amadou tamit Diène mais dañ ne nañ jëlee Alaaji Abdou Aziz Thiawal mu ne du ma ñëw dëkkuma fa. ñu ne ko Assane 2 mooy ñëw te comme moo liggéey jumaay Dakar lu bare bare bari par worma ñu ne yaw na nga ñëw comme yaa demoon wax ak moom nga jiite buñ paree ñu waxtaan. mais nag léegi am na ci ñaar nit ñoo xam ne je du ma tudd seen tur. Mm-hmm. lu xew rek ñu ne ñooy président des imams et oulémas du Sénégal maay secrétaire daal di wax yu kenn xamul libre nañ ci ah parce que léegi réew mi lu neex waaye mu wax mais fa dëggee ji bi kenn ko nekk xam na ko Serigne Mbaye Sy Mansour mooy xalifa la wax na Serigne Mountakha yàlla na yàgg yo yo yokk wéram wax na bi génne ko par joxe kër Baye Niass ci Kaolack wax nañu Njaasaan kër Maam Bu wax nañu waa kër Cheikh Omarul Foutiyou man duma famille omarienne damay wax waa Kër Cheikh Umarul Foutiou man duma tubaab mhm. et je suis contre même le terme famille omarienne loolooy war ma mhm. wax nañu mhm. waa ñu nangul leen ko ñi fi wax ñëpp nag ndakaaru la ñuy waxee te ñuy wax ci Dakar yëpp ñun lañ fi fekk si ñoo leen dalal yaatal leen dëkkal leen lépp yi ñu dalal Seydou Nourou Tall mu collaboré ak ñoom ñu def ko papa waa Kër Cheikh Omar la moo tax mu am fii mu am tey ji booru géej foofu ma nekkoon maison de jeune et de la culture ak Caravansérail lépp la ko Senghor jox du mu wax ci nag Serigne Touba lébu yi ñoo ko daal bi ñu ko waree déporté ñu ne du dugg kaso lébu yi ñoo dëkk ak moom fii 1895 Alaaji Malick lébu yi ñoo ko dalal jaay ko pàkk may ko espace ci avenue Lamine Guèye yi bi nekk du ñettaa ngi noonu cheikh Sadbu ak cheikh Talibiya seen waa ñu ngi doon dal saprole bi ko lébu yu jaayee ci leen Lamine Diack may espace ñaari tali fii xayma bi nekk Mamadou Diop moo ko tabax du ñeentaa ngi noonu limaamu lay ñoo ko juddu la dëkk Yoff muy lébu comme ñun bon Tijaan murit xaadir lébu yee leen recevoir bokk ak layaan ñi ñu dëkkal mhm. lu kilifa diine wax dañ koy accepté Autant le chef de l'État écrit de la gauche vers la droite, autant ces chefs religieux écrivent de la droite vers la gauche. te ñoom ñoo man xëy ni bu subaa nañu woor ñëpp xëy or bu président ne bu subaa bu kenn ndékki day mel ni buñu ñu suba ci fajar ga la yàlla dàq cokkeer yi ak kay kéwél yi ah xam nga cokkeer c'est la perdrix ak pentade naat ñu daw dugg ci dëkk bi ak kéwél yeeg lë lëg yu ndaw yeeg njombali ñu jàpp ci da ngay génn rek benn taxaw na la maa ngi nii daal di jàpp ren mais bu sëriñ si nag na ñëpp or am na ñoo xam ne bu ñu ci guddi gi ci la ñuy commencé galax na rek daal di départ dem seen yoon bon réew ñaari ku séq kilifa ci ñoom ñiy bind càmmoñ jëm ndajoor ak kilifa ci ñiy bind ndajoor jëm càmmeñ te njëkk leen fi te ñoom état bu ñu jommee ci sëriñ si la ñuy dem état jaaxle ci sëriñ si la ñuy dem bu état gisee situation bu jaxasoo ci ñoom la ñuy dem ñu ngi sàkku seen ñaan ku ci bëgg fal sax sëriñ si lay ñaanal bon la collaboration entre ce pouvoir mm-hmm. d'état on appelle temporel xamu nu mu tudd mm-hmm. ak le pouvoir bi nga xam ni ñi dañ ko yor te xamuñu ne pouvoir lañ yor parce que alal yàlla lañ yor ñu ko war nañu mun déggoo mànkoo waxandoo ci lenn ñëleeg seeni décision seeni sérum seeni vaccin seeni comprimé seeni moustiquaire ak yi ma xamul li mu doon ñëlee ak seen toog alaw ma yaa nangam ëf mm-hmm. sëriñ bi dafay toog fii ñaan ëf mu dem ba États-Unis mu toog fii ñaan ëf mu dem ba Australie mu toog fii ñaan dem ba ba ba Europe mu toog fii ñaan ëf mu dem ba Asie sëriñ bi yàlla may loolu bokkul ak yow mi nga xam ne nag di nga jàmpi nga di nga dugal ràbbu di nga mais dara les forces sont appelées à s'unir pour que nit ñi mën a am jàmm pour que nit ñi mën a wér loolu lépp mu am solo mën naa am Samba tey hmm. euh, ñu wax ko bañ koo wax ñu ci hmm. bari jaaxle nañu ndax feebar bi di xalaat aussi bu weesoo mm-hmm. ci yan jafe-jafe lañ jëm ndax euh, wàllu koo mag yooyu yëpp daanaka am na ci ay njeexital ndax situation bu mel nii mm-hmm. nit ñi tiit jaaxle mm-hmm. mës naa am euh, ci euh, jaaree ko ci épidémie wala pandémie ñu fi wax non non épidémie ñàkk mas na fi am mm. parce que dañu bay saxul atam ñi ko atam jéeri jor la mm. yàgg na dañu bay nawetul bu am ndox amuñu dugub amuñu gerte waaw ñu dem ba nga xam ne lekk danga ngay rang ñu jox la ticket pour loo añee bëccëg bu subaa nga ñëwaat. fii Ndakaaru. ci Sénégal Sénégal Dakar amoon na fi. mais yàlla am na ñu mu dimbali nga xam ne ñun lébu yi du duñu dal parce que ñu ngi ci booru géej dañuy napp. waaw nous n'avons jamais faim. masuñu xiif parce que géej gaa ngi fi. te yàlla bu naqari lay jéeri neexal géej mm-hmm. li waral ñuy dem géej nappi jën mënuñu ko lekk yëpp mënuñu ko jaay yëpp ñu xar ko war ko gejj ko mm-hmm. mu am juróom benn weer ñu di ko lekkaat. maa ñu keccax ko. non ñu jàpp gën ba bi raxas ko lakk ko def ko keccax denc ko. li waral bool bool yeeg ajoor yeeg Saalum Saalum nangootuñoo ñu bis moom mbokk si seen yeeg saaxo saaxo yi kenn nangootul dem ku ko ci mos dangay ngay lang doot loo dem yooyu yëpp yooyu ci mayu yàlla la ñii gis ne bato ñëwul parce que dañ ne bato ñëwul ba ba avion dem économiquement parlant ñoom duñ ñu jaay si nañ jàpp ci lii mais na ñi fi nekk yor dund bi nañu am ngoru bañ ko yokk que les commerçants ñiy jënd di jaay stock yi ñu yore parce que bato du ñëw que ñu ñuy teg ci bénéfice bi loo xam ne dafa ëpp. parce que mu ngi manqué mais li manqué charia def lu wax ne li nga yor jaay ko li nga ko doon jaayee bu mu jeex mais bu manqué rek nga yëgal barak loolu mooy indi nga jaay ba ngoon njot ñu tafu la wala nga jaay ba ngoon. ñu dóor la kuur ci yoon bi. baa nga yeewu bitig ba tàkk. wala nga jaay ba ngoon bitig ba lakk ci guddi gi. riba mooy taal ñaare le plus souvent. alal lu jar cent franc nga di ko jaayee deux cent franc ku bëgg a jënd ku bëggul yi riba def ci jig li ñuy ragal matul ragal yàlla mooy xam li xew ëllëg. yàlla mooy xam li xew ëllëg yàlla mooy boroom ëllëg ëllëg ëllëg la tudd. mooy xadan nga baal ma nag ma wax beneen ndox xadan ëllëg xaybun kumpa la laa yaxlamul xaybu illallah ku dul yàlla xamoo li xew ëllëg ñi ma jàngal ñëpp jóge nañ fi kenn naa fi des yàlla na yàlla ko yàlla may fan bu bu ànd ak wér dañ ma ne ëllëg bul ci wax kumpa la yàllaa xam liy xew ëllëg sa yoon newu ci mhm. ma njoon laay ba waxal mu ne oh ba nu àgg saa laay maam Dieng nangam ak nangam ak nangam maam Dieng mun la oh aw doxalu toog ëllëg ñëwagul ëllëgi maam yàlla buñ jaagee ñëw xel ba xam ndax li yàlla maye woon def ko nangu wala déet bon les retombées économiques nit ñi ragal mm-hmm. nañ ko dénk yàlla parce que yàlla neewul ëllëg di mooy xew ñi jënd ak di jaay frontières yi buñ ko tëjee dara dugg seetul c'est question de protection et de prévention ku ki yaakaar ne nag li nga stocké mën naa neex ba nga yokk ko ne économiquement di nga fitnaal nit ñi tu te trompes économie réew mi li mën ko daaneel am na bu ñu waxul doit makk na lañu bu kenn bu kenn umra màkk ci ci la muy liggéey màkk amul usine amul industrie daanaka tourisme religieux boobu moo ko yor loolu rek moo ko fa yore bu ñu demulee suñu koppar mooy ñoom ñoom ñooy daan te lañu sàggan rek ñoom tam ba bu dee ba bu dee ne bu yëf yi dekkee ñu bañ a xool leur manque à gagner bi ñuy ñàkk ren yokk ci seen affaire mhm. man je ne suis pas un politicien homme politique la bokk naa ci parti duma ko wax mhm. mais lu am ci réew nañu jël identité politique bi teg ko ci suuf ñu xool l'intérêt de la nation mhm. maakaa ngi ni kenn waxagu ci de xam nga man maa ci wax kenn du dem umra ren nañuy fexe ba bu ëllëgee bu ñuy dem bu ñuy aji yooyu ñu ñàkkoon ci yomb bi ñu koy jéem a dabb. di jéem jé jéem a dabb fii ak déwén et tout est possible. waaw qui ose en parler. c' est de la prévention nañ ko ci boole. Mm-hmm. di ko wax ñu di ko dégg ñu di ko dégg. ci bi muy teel ci bi muy teel léegi laa koy wax. dem naa Màkk ñeenti yoon dem naa Maroc ñaari yoon par avion et par la route à la sueur de mon front mm-hmm. bon am na yoo xam ne kenn du ko caaxaan ci réew nañu xool li li jaadu mm-hmm. nañu xool li jekk. ku yaakaar na nag lii frontière dafa tëj bato ñëwul gaal ñëwul nga denc marchandise ci boutique bi fii ci buntu kër gi nit ñu sonn nga yokk ko sa wato yi këpp rek nga jóge fi mbaa gaa yi dóor la nga daanu mbaa boutique bi lakk mbaa li nga yor doo xam fu muy jaar danga nga dégg man daal maa ngi woon ak 2 millions mais xaw ma fan la jaar et cependant 2 millions yaa ko yor ci sa poche yaa ko dépensé mais xamuloo fu mu dugg parce que naaw la. alal def dara lu am njëriñ. déedéet alal bu lewul yàlla na ci yàlla musal jaaykat bépp jaaykat buy jaay lépp loo jaay yàlla na lew yàlla na ci yàlla dugal lu sell ba nga bañ ko ñàkk parce que da ko jënd danga ko jaay. te commerce liggéey la boo xam ne yàlla moo ko barkeel. ndax Aminatu moom doon liggéey la yonent bi ba seen diggante am ci benn jële njël mag ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag sëriñ si ñëw koy wax man du ko wax. Mm-hmm. mais xam naa ci loolu. ngir jeexal ci épidémie yi choléra. tudd ñu ko woon amoon na fi amati fii ci Sénégal. aussi indi woon fi ay jafe-jafe xam amoon na fi ñu sow ko. sida sax amoon na fi fan la choléra mujj mhm. lu ko fi andi woon li ko fi andee ko lu ko fi andi woon xaw ma dañ ne woon moytu leen léeg moytu leen la mhm. mooy daw biir ak nit ñi ku dem ñu pikir la mu arrêté ngay sa biir daw ngay wàccu. Mhm. pënd mën na ko andi. le Sénégal est le pays africain le plus proche des États-Unis essai nucléaire yi bu as satellite xaw ma fi su jógee jëm kaw pënd biy jóge ci kaw mais mais fii buy daal fii lay jëkke ñun nous sommes exposés à l'ensemble des intempéries yi nga xam ne pënd yooyu mën na ko àndi mais quelquefois yàlla jëlluñu nag daal ci beneen dëkk état yàlla génn ñu dal ci beneen état ñu ne ëpp sàngam génn dëkk sàngam ëpp dañuy wax ci choléra bi sonn wax ci sida ñaata at lañ tudd sida fi di ci dem conférence réew ak réew di fi jël hôtel di fi génne xaalis ci oto di fi lekk di fi bay ay për jëm fan la sida mujj est-ce que nañ ko doon wax démb ak bërk démb ba léegi ñu ngi koy wax waaw yow man affaire yaa ngi nii <laughs> coronavirus bi ñu jeexal tey conseil boo am di ko jox sénégalais yi surtout ak suñu façon dundin ak xëy na yenn résistance yi nga xam ne ñu ngi koy gis li ma ciy joxe ci conseil daal ñaar la na boroom kër bu nekk jàng fatiha salaatul fatiha ak 333 salaatu ala bi ëf ko ci sa ti kër mu bañ fa dugg ñi man jàng nañu xool suratu saafaati aaya 103 jeexitu aaya bi la talaxu lil jabini nañ ko bindal xale yi ci seen gannaaw diggante ñaari mbagg yi feebar bi du leen dal comme man aw pikiir mm-hmm. dañ na loolu ci àllimaam yàlla la gën te am na lu mën faj loolu lay joxe comme ndénkaane mm-hmm. loolu lay joxe comme dañ ma ko jox alxuraan la waxi yàlla la du suma waxi papa mm-hmm. mag moo ko wax ma mag moo ko xam wax ma te fayuma ci dara ban war naa am ngonuk joxewaat ko di fii nit ñi mën ko jëriñoo matul xeeb nag suñ ko defee boo ko ëffee ci sa ëtt du dugg ci sa kër kenn ëf ko ci këram du fa dugg jàngoro joo xam ne ci mbedd mi la nekk ba la nekk sax nga jàng ëf ko ci mbedd mi mu ñokk sa waa kër ba feebar du leen wàll mën nga ci mucc loolu de laa xam ci li ci des li des nag li ci des nag Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et mhm. de l'action sociale ak Macky Sall ma jiite réew mi ñoom ñoo xam seeni pexe mhm. man daal suma pexe en tant que doomi Lébu mhm. lii laa ma mag ñi wax lii laa joxe ñoom tamit seen pexe scientifique yooyu ñu yor yàlla ci yàlla def barke ba kuñ ci pinga nga wér waaw parce que fekkee ne da nga am mbokk fii ci Yoff bu feebaree nga faj ko nga am wëllëre ba xam ne mu nga dëkk Kaolack bu feebaree nga yónnee ko lu mu jënd garab nga am wëllëre bu dëkk Tambacounda bu woppee nga yónnee lu mu jënd garab nga am wëllëre bu dëkk Casamance noonu wëllëre bu dëkk Ndar noonu ah wëllëre bu dëkk cees noonu wëllëre bu dëkk Bawol gi noonu war nga fexe ba loo am ci luy faje nga bokk ko ak ñoom pour ñu mën ko fajo yaa ciy gën a noppalu itam yaa ciy parce que bu fekkente ne fu ne nga yónnee fa luñ jënd garab ah. léegi tey sa poos feebar. léegi sa poos day yuleeku te comme poos yi léegi. daanaka du teen boo xam ne day ball lu dul dañ ciy sol. te gars yi joxeetuñu. Mm. bon fexeel ba ñooñe lañu ñu nekkee nga yëgle loo xam ne buñ ko jëfandikoo man caa bëri. yal yàlla barkeel lépp Samba ñu ngi lay gërëm euh, rafetlu waxtaan weeg disponibilité bi am na solo. ñoo ko bokk yal na yàlla def jàmm. ci réew mi. yal na ñëpp wér. ñëpp duñu wér nag foog ñu feebar. waaye feebar bi comme li ma la waxoon sànq ne mooy alali nit parce que du ko bokk kenn opp juy ñëwet yàlla na ñëwee ndànk rek ba ñu mañ koo dénku te yàlla may ñu la ko faj ñu bañ ci sonn nit ñi juboo nit ñi déggoo xam ne ñoo bokk ndey ak bay mm-hmm. réew mi ñoo ko bokk mënuñu ko séddoo nun lébu yi nag ñoo ci gën a dey parce que lépp Dakar lay xewee te bu Sénégal doon tàkk bu gayee yi dawee ñibbi mm-hmm. Kajoor ak Bawol Siin ak Saalum Jolof ak Njàmbur ak Waalo ak feneen ñun dañ fiy des bon ñu ngay ñaan yàlla ñun ñi fi des ñun ñi ñëpp di fekk si fii ñëpp a ci dege yàlla na fi yàlla di def jàmm joo xam ne dina tax ku ñëw mu neex ba nga fàtte fa nga bàyyi ko woon et c'est bawol bool yi laa gën yëpp parce que muy dugg école ñoom muy doon nga ngàbb ci loxo di mu yóbbu école may jàngi mais bu ma nee gars yi kaay leen ñibbi ñu ne bu ñu fontoo <laughs> ñibbeetuñu <laughs> voilà jërëjëf El Hadji Ndiaga Samb la ñu doon dalal ci démb ak tey moo jiite mouvement des jeunes lébou de Dakar jeune la nag waaye bopp bi dafa weex tàll macha allah yàlla na yàlla ñoo di fan yi ñu daal di gërëm aussi sama xaritu bopp Abdou Khadre Gaye mi nga xam ne moo waral uh, gise bi ak xamante bi waaw Eh, kon ñu gërëm ko gërëm itam ñi nga xam ne ñoo doon déglu émission bi gërëm Diawa Diallo eh, mi ne woon ci machine bi Fatou Thiam nga moo fare woon ci kàddu gi ñu am yaakaar ne li ñu fi wax yépp am na njariñ eh, lu fi génn itam yàlla na doon barke amal njariñ ñëpp surtout ñaan yi nga xam ne joxe nga ko sàmb ñu lay gërëm bu baax rafetlu waxtaan bi ak surtout dalal bi macha allah kon mbokk yi dem ak tey la woon dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen wopp gi yàlla na fi gaaw juk bala mu ñoo ëppi loxo daal di itam fay ci àdduna bi yëpp yàlla defal ñëpp jàmm ñu yendoog jàmm mbokk yi ba dimanche incha allah